yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. waaw kay jërëjëf jërë ngeen jëf euh, niñ ko baaxoo ànd ak yéen rek ñu ngi nii tey ci jumaa ji. ci li nga xamante ni moo di euh, invité bi nga xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma mu ngi ko invité kuréel yi nekk ci dëkk bi. tey mu invité kuréel bu am solo ci dëkk bi ñoo xamante ni euh, ñuñ bàyyi xel la muy fédération bu handicapé yi euh, bi nga xam moo nekk département bu Mbacké euh, si Moussa Mbaye war a wax ci seen kaddu ñu ñëw nag ñoom itam fekk si waxtaan wi ànd ak daara Moukhaddamatoul Khidma ànd ak itam ak ñoom ngir liggéeyal Serigne Touba ànd ak itam ñëw bokk ak ñoom ndogu yi ak li nga xam moo di waxtaan wu am solo yi nga xamante ni ñu ngi koy ànd ñoom si Moussa ginnaaw bi ngeen ñëwee yëgg seen bopp bu baax ñu boole leen ci liggéey bi. Euh, xëcc leen euh, taf leen ci suñu bopp daayira bi noonu la noonu lay demee amul xaj ak seen amul kii ak kale lépp ngeen gis ko euh, am na kaddu yoo ci bëgg a yëkkati ak délégation bi nga dal cheikh bi nag da ci defaale langage commune kii boo xamante day junjaale ngir ñeneen ñi nga xamante ni ñooy seetaan to xëj na seen déglu tolluwul noonu ñu mën ci am si Moussa Gone bisimilah ci kaddu yi nga xam moom nga yëkkati incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu le xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. yàlla na ko fi yàgg yàlla na ko yàlla wéral te yàggal ko fi si barkeb Serigne Saliou di nuyu le xarif général de Baye Fall di nuyu képp ku kilifa diine si dëkk bi rek. waaw di nuyu tamit uh, waa daayira bi nga xam ne tey jii ñoo invité woon délégation bi nga xam ni man maa ko jiite man Moustapha mbay mu ma nekk président fédération communale uh, des handicapés de Mbacké mu nekk huit association yoo xam ne ñëpp ay waylaago lan uh, tey nag ñu tànn si huit association président ñu ànd ñëw tey waaye ay rëq-rëq yu mel noonu ma ànd seeg euh, président Fallou Wade mi nga xam ni moo jiite handicapé moteur yi ànd seeg euh, Mass Mbeng ànd seeg moom ma nga xam ne moo nekk mix association mix maanaam mix boo ko déggee association boobu bépp xeetu handicapé rek mi ngi si bokk ma ànd seeg suñ benn jigéen bu naan ngoone Fall moo mu jiite handicapé jigéen ñi nekk Mbàkke euh, loolu mooy délégation ànd ak suñ chauffeur tamit mu ànd ak ñun si délégation bi ñu ñëw fekk si fi sëñ Masata mi nga xam ne moom it mooy coordonné lu mel nii si handicapé yi fii si diwaanu Mbacké ñuy sant bu wér nag si invitation bi ndax lii guléet la guléet la te lii wan na ni yéen a ngi liggéeyal sëñ bi ndax liggéeyal sëñ bi weesuut bàyyiwu leen benn couche ndax ñun ñu mel nii lii mosuñu si invité mosuñu invité te li ngeen liggéey nii moom ah maa ngi ko wax léegi Masata fii dafa mel ni màkk ndax leen gis makk la leen gis fii si bernde yi si teraangay si accueil bi ak si yéene joxe ji ndax nit ki dina defar ñam ba pare kat maanaam joxe bi yéene jooju mu xaw a des yéen moom fédération handicapé bi nga xam ne man maa ko jiite fii si commune Mbacké dama leen di sant di leen gërëm te xam ne bàyyi ngeen ñu xel bàyyi ngeen ñu xel bu baax a baax ndax bàyyi xel gi weesu ngeen couche bi nga xam ne ñun dañuy fàtte lu si bari dañuy fàtte ñu bari ñu nekk si dëkk bi dañuy fàtte yéen ngeen jël ñu boole ñu seen biir euh, invité ñu boole ñu si euh, ndogu bi loolu dañ siy sant bu wér si sant bu wér nag te sant bii nag amul àpp amul àpp te ñi ngi koy suñ xol lañ ko tibbee suñu xol lañ ko tibbee te ñi ngeen naan sant bi mu yegg ba sëñ Mountakha Mbacké xam ni yéen yéen a ngi liggéey sëñ Touba barke seen Saliou ndax boole ñu seen kuréel gii invité ñu mooy liggéey sëñ Touba ndax fàttewu leen benn couche loolu moom dañ siy sant bu wér a wér a wér bu loolu weesoo tamit ñi ngi ñi ngi koy dagaan ñi ngi koy yelwaan ndax suñu mbokk handicapé yi ñëw si jumaa ji seen nekkuwaay léegi doxin tey metti ndax ku mel ni ay fàlluwaat tey joxe na exemple bi muy ñëw euh, dox bi dafa metti trop bu ñu mënoon am ay pousse-pousse yoo xam ni bu ñu ñëwee kooku jumaa ji bu ñu fekk rek fekk fa benn pousse xam ne handicapé bu mënta jël ñu teg ko si pousse bi yóbbu ko loolu tey taw féexe ñu fekk fa ay rampe yoo xam tamit ñu mën a yéeg tamit loolu tamit tey gën a tey gën a ñaax euh, tey gën a doxal liggéey bi a gaawal liggéey bi loolu moom dañ leen koy yalwaan di leen ko dagante xam naa ne seen xele ngi si fàttewu leen ko ndax ñi ngeen ñu fàtt ñi ngeen ñu sóoraale nii mooy waral ni fàttewu leen ñu si lenn lenn barke Serigne Sall bu loolu weesoo tamit ne ñooy nekk si euh, li wër jumaa ñàkk ndax handicapé moom ak majal ak yalwaan ñoo ànd ngeen noo leen leen mën a organiser ndax yéen yéen organisation lu war jumaa ji suñu mbokk handicapé yi nga xam dañuy yalwaan ngeen xool noo leen leen organiser noo leen mën jàppale boole leen ñoo xam ne dañ leen mën a encadrer ba benn coono duñ am benn benn benn euh, fitna duñ ko am si jumaa ji loolu daal ñu ngi leen koy dagaan encore di leen santaat bu wér nag di doole sant bu wér xam ne lii moom boole ngeen suñu bopp tey egg na si suñu xol fédération handicapé yi tënk si ma ñu tënk si juróom-ñetti mbootaay yi nekk Mbacké sant nañ bu wér a wér a wér barkeb Serigne Sall kontaan nañ trop si invitation bi ngeen ñu invité tey ji jërë ngeen jëf. kaddu yu am solo yooyu euh, doléance bu am solo la waaye fekk na sax mu ngi fi woon xam naa ñàkk a déggante la wala itam xataayu bés bi waaye jàgg leen lañ loon bàyyi nañ xel lool ba am na pousse pousse yu ñu fi bàyyi yoo xam ngir yu mel noonu la. ndax ñu bëri dañuy ñëw ngir julli si ñu bëri ci ñoom dañuy ñëw ngir siyaar si te ñoom ñëpp nag daayira bi daa wàccoo rafet ba am na sax passerelle yoo xam def nañ ko ci xam ne spécial bi nga xam ne daayira Moukhaddamatoul mu ngi koy taxawee am na lu ñu def na waaye nag ñoom itam dañ dugal seen loxo ngir loolu gën a mat gën a yaatu bu baax a baax incha allah di wax ne Sëriñ Tuubaa nag ku ne la am moo tax ñun daayira Moukhaddamatoul Khidma itam dañuy xam ne comme ku Euh, dafee war a ñëw ku itam euh, njabootu Sëñ Tuubaa la bu ñëwee nañ boole ñëpp uuf ñëpp bañ a amee xaj ak seen Euh, bañ a xamee ki ak kale moo tax ñun ñëpp ñoo bokk yem fa yàlla ñoo bokk yem fi sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa xamee wutoon handicapé xamee wutoon ka nga xam ne du handicapé ñëpp la boole woon njaboote loolu moo tax daayira bi tam boole ñëpp njaboote jërë ngeen jëf yàlla nañ ko yàgg a fekke yàlla gën leen a sàmm gën leen aar gën leen a euh, wéral cër yi bu baax a baax euh, ba ngeen gën a am kattan gën a mën liggéey sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu